Rewmi 24 TV dal leen ak jàmmoo ci xibaar lundi 18 septembre mu mel ne maître Ngagne Demba Touré jamono yi ma ngay def liggéey bu am solo donte nekkatul Sénégal ma nga fële ca diwaanu Mali fii ñuy wax ak yéen ni maître Ngagne Demba Touré daal dina def ab sortie nag daal di dem rek fële ca xam ne rek mooy ambassadeur Sénégal foofee ca Bamako moom mii di maître Ngagne Demba Touré ak ay àndandoom rek ña ngay rek appel rek di wax na rek jamono yi ndaw ñi rek amuñu dara lu lu rek di topp ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ni ñu koy def ci yi yi kon loolee daal dinay doon loo xam ne lu rafet la moom maître Ngagne Demba Touré ba tey muy ñëwaat di expliquer rek di wax ne nañu jublu ci li nga xam ne rek jamono yi mooy parrainage bi li nga xam ne rek mooy opération jële seen carte d'identité ca war a waajal li nga xam ne mooy présidentielle 2024 kon moom mii di maître Ngagne Demba Touré donte nekkatul Sénégal waaye rek fa mu nekk ca diwaanu Mali ma ngay def liggéey bu am sa jëmale ko ci leaderu parti bi di Pastef ñu koy woowee président Ousmane Sonko mi nga xam ne rek jamono yi nga xam ne rek ab grève de la faim bu yàgg la fa amaloon ba bàyyi na ko ñu bari ci askan bi ñu ngi taxaw di xaar ñu libéré ko booba ak léegi mi ngi bëgg a yàgg ñëpp di xaar rek libération ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko kon maître Ngagne Demba ma nga fële ca Mali di def liggéey bu am solo ngir rek parti bi di Pastef